di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ñu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim te jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin naafila gi njëkk ci guddi gi mi ngi nekk fukki rakka rakka wu ca nekk danga cay jàng benn fatiha ak inna ansalnaahu fi laylatil xadri ñaari yoon ak qul ya ayyuhal kaafiruun ñaari yoon kon naafila bi noonu la toll fukki rakkaa la rakkaa ca nekk benn fatiha ak suratul xadri di inna ansalnaahu ñaari yoon ak suratul kaafiruun di xul yaa ayyuhal kaafiruun ñaari yoon ba mat fukki rakkaa julli gii nag mbokk yi am na ay ngëneel yu ca nekk te ñu ngi ko tubbee ci téereb Sëriñ Suhaybu bii di xuratul ayni wax na ne képp ku julli julli gii ba nopp yàlla dina la araamal ca safara bu ko soobee niki noonu it lépp loo ñaan yàlla ca gannaaw julli ga yàlla mën na la koo may ci bu soobee kon yàlla nañu yàlla may fekkee ak jàmm ñu woo ko ni ko yàlla bëggee ci bàkkeb Sëriñ Tuuba wa axiru daxweehum an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf